waaw je je vois alors euh, Sonko ñu ngi barricadé son domicile depuis plus de deux semaines euh, lan ci ci ci ban ci ban soubassement juridique lañu teg loolu. même na. waaw. dama lay tontu balaa ma lay tontu dama lay laaj xam nga damay dégg yenn saa yi ñu ne moom ñu ngi restreindre. ses libertés ses libertés. waaw. même na ñooñu koy wax. bi mu defee appel à l' insurrection est ce que wax nañ ko ne waroo def appel à l' insurrection. warul def appel à l' insurrection. ñooñu waxuñu ko. Mm-hmm. bi mu ne dañuy dem xeex xeex bi mu jeex cooki final Dakar déloger Macky Sall ci présidence bi loolu wax nañu ne du yoon wax nañu ne du yoon. am nañu ko wax. Hmm? ñu pare waxuñu ko ñii ñii ñii wax ne nii dañu war a ay waxuñu ko bi mu defee caravane dem Kolda mu am de morts. un mort fa la Kolda amee mu demaat fenn am ay mort dañ naan euh, non vraiment nag kii politicien la nañ ko bàyyi la ay droit mu def suñu demee Kolda mu am ay mort suñu demee Vélingara mu am ay mort Tamba mu am ay mort Kaolack mu am ay moor Thiès mu am ay mort Tëngéej su fa accès mu am ay mort grawul na mort yi am état loolu mun na ko def état dafay responsable état day am fayda su nit jógee ne man damay def samay tournée te nit di war a dee dina indi ay moor ci dëkk bi mais état da ngay am fayda def le maintien de l'ordre maintien de l'ordre mooy lan mooy facteur bi perturber ordre nga maîtriser ko. da am corpus juridique boo xam ne ci ngeen war a baser. c'est le maintien tous les actes. c'est dafa war a am un corpus. maintien de l'ordre c'est la légalité li ñu def c'est légal. maintien de c'est la nécessité quand c'est nécessaire il faut le faire munoo croiser les bras maintien def loo xamante ni c'est utile. bul def lu ëpp maintien de l'ordre c'est la réversibilité. mais assignation à résidence soo demee ba xam ne lii amatul nécessité nga def ko nga delluwaat ci ginnaaw. mais assigner pour assigner quelqu'un à résidence il faut qu'il y un acte. de zéro mort boobu léegi zéro mort moo am kenn de. zéro mort waaw mais mais mais. amul amul maintien de l'ordre amul un soubassement euh, juridique maintien de l'ordre c'est une mesure administrative mais c'est fourre-tout. non une mesure administrative xam nga lan mooy l'État a le droit de prendre toute mesure administrative destinée à garantir la tranquillité et la salubrité publique loolu mooy rôle état de. loolu amul c'est c'est ce que vous avez fait en arrêtant la la la la caravane et en l'acheminant de force à Dakar ngeen ne maintien de de de l'ordre la. d'accord mais assigner quelqu'un à résidence. est-ce que waruñu ko def sur la base d'une ordonnance du juge. jël ay téléphone nit. si c'est exposer ses données personnelles. jël ay téléphone am dugg ci c'est-à-dire man loolu dama bëgg a comprendre yow mi ministre la justice ci ban ci ban ordonnance juridique ngeen ko teg fan ngeen ko teg on n'est pas encore dans le la justice léegi nag attends non nekk du domaine par contre su ko contester devant la justice les tribunaux foofu foofu mais mais ngeen utiliser pour pouvoir faire tout ça comme ça veut que ñun ñëpp on est en insécurité euh, man aujourd'hui mun naa di dox ñu et puis di ma topp ci ci yaay kii alors qu'il n'y a pas une enquête. Maïmouna vous avez posé une bonne question vous avez fait une excellente remarque yow bis boo jógee def appel à l'insurrection mu am cinq morts ñu def la noonu yow. mais dafa war a am benn corpus juridique. non boo leen war a euh, teg seen seen seen Maïmouna Ndour Faye génn fii dem Wakaam des morts. mu dem Tëngéej des morts mu dem kii des morts muy ne day def kii appel à l'insurrection day dem wooy Macky Sall ñëw soo demee sa kër ñu assigné la jël say kii ba maintien de l'ordre su la neexee nga attaqué ko en justice la justice va trancher. waaw mais assignation en résidence procédure la. pardon. assignation en résidence non assignation résidence c'est pas ça assignation en résidence suñu la ko defee tu en prison chez toi. c'est différent. mais procédure euh, la Atepa pour aller le voir il a il a il a requis une autorisation il a demandé une autorisation et il le dit oui, avocats ne peuvent pas y accéder personne ne peut accéder même dans le coin mais c'est une décision judiciaire d'assignation à résidence pour l'instant c'est une décision administrative prise dans le cadre de maintien de l'ordre qui est contestable si on considère que la mesure excessive disproportionnée on l'attaque devant la justice la justice tranche la justice tranche l'autorité administrative exécutant. on est dans un loolu yëpp ci maintien de l'ordre. toujours établir un euh, euh, il faut établir un référé au niveau de la justice la justice tranche mais quand l'État est agressé quand l'État est menacé quand le le le euh, l'enjeu c'est la vie des citoyens nit ñi di dee mais loolu État du croiser les bras naan ay kii du ma def loolu ndaxte ay kii État li ñuy xaar ci moom mooy défendre les personnes défendre les biens défendre le territoire assurer l'ordre quoi qu'il coûte loolu soo ko deful dootoo état de su fekkee nit mun na jóg def caravane nit ñi di dee di dee ci benn bi di dee di dee nga naan noo damay bàyyi ay droit ak yooyu yorootoo état jëlal état bi nga jox ko ñeneen nga di sénégalais yi mënatuma leen protéger mënatuma assurer ordre bi on est dans le cadre du maintien de l'ordre xam nga les décision qui sont prises sont des décisions administratives mais attention contestables devant le juge dañu def recours devant le juge et le juge va alors ici on nous dit on invoque la loi datant de 70 euh, la loi 70 23 18 juin 70 portant organisation de la défense nationale une loi les notions de défense nationale de défense civile pour ce qui le le, le blocus de la cité euh, Gorgui ñu ne dañ ko teg euh, sur le principe de la défense dite civile et elle est exclusivement du ressort du ministre de l'Intérieur et de la, loi lui donne énormément de pouvoir. Mais Par l'autre. Oui, mais, oui, mais, oui, mais en 2023, Dès qu'il y a des menaces. pour le respect des, des, des, des, la préservation des libertés de, de Et d'ailleurs, la ah, préservation, des vies des Sénégalais. Oui, et d'ailleurs, la, loi le, dit. il faut respecter les droits de la personne, il faut préserver la vie des Sénégalais. c'est l'état de droit c'est c'est arbitrage là je reconnais la, les droits de Maïmouna les droits d'Ismaël Madior Fall pourvu que ces droits ne remettent pas en cause les droits des autres Sénégalais et n'engendrent pas des morts mais quand il y a des morts l'état c'est régalien l'état a des prérogatives régaliennes l'état les utilise maintenant attention quand l'état met en œuvre ses prérogatives c'est des prérogatives qui restent contestables et attaquables état dafa war a am fayda def li nga xamante ni moo tax nit ñi du ñu dee moo tax du ñu taal du ñu du ñu du ñu ñu jaxasi dëkk bi waaye nag su ko état defee su benn juge ne li ngeen def lii du yoon da ngeen ko génne ñu daw génne ko de loolu mooy état de droit. mooy li nga xam ne donc les avocats d'Ousmane Sonko mun nañu. attaquer la décision. bien sûr et un juge peut annuler. cette cette cette décision. mais c'est ça mais encore qu'il y ait décision. y' a pas de décision y' a une décision bu ñu génn ne waaw. Ousmane Sonko dañu koy assigner à résidence. yow gis naa ne yow gis naa ne jàng nga droit bu baax mais loolu xanaa jàng ko ci droit droit su décision amul da nga koy provoqué da ngay bind ministre de intérieur su la répondre nga am nga acte su la répondre silence bi c' est considéré comme étant un acte implicite de rejet loolu mooy droit acte day am su amul nga provoqué ko. alors état de droit ay procédure la. da nga koy xam et puis tu utilises les procédures. Alors je, je termine par ça euh, le président instruit